assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci kàttanu yàlla subhaanahu wa taala ak i mbaaxam la ñu dellu seete ak yéen ci seen jotaay ñu bokk ko bokk muy sunu jotaay jotaayu daara jotaayu laayante biir jotaayu fàttelente lii ci Cherif Dabakh TV ñu dellu siwaat ci mbaaxu yàlla subhanahu wa taala di ko sant ci may gi mu ñu may ñu fekketi ko di ko ñaan mu nangul nu sunuy sant ko ak sunuy jàmm ko sunuy ñaan ko may ñu it ñu yàgg di fekke ci biir wér ak wérle mucc ak mucc leeg dund ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam te di ñu nangul lépp tamit loo xam ni ñi ngi ko fiy def ci wàllu fàttalanteeg dé aoudu billahi min alshaytaan arrajim بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الطيب تبارك الله وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا ديكو ñaanal yalla mottilil ko yenen ci darajey maamam yonent bi alayhi salaatu wassalaam li ñu ko fi seedeel rekk du jekku gis posé dem bàyyi mbokki jullitam du lekkit moom kenn royo yooyu ci maamam moo waral lii ak yii baarakallahu zawiye fii ci amookaat di fii ki nga xam ni moom lañuy ñuy tàmbalee di ñaanal fu ñu toll dëkkoon te mooy sunu ndeyu daara ca di soxna Adja Fama Wade yal na yàlla subhanahu wa taala dolli ca moom niiri yërmandeem ya di ko ko sottil di ko ko dottil ak niiri njëggalam ya boole ko ko bépp jullit bu mu fa tëddandoon ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam boo demee ca mag kër gi yonent bi alayhi salaatu wassalaam gane woon àdduna ay téere lañu fa def muy jaayukaay muy jaayukaayu téere yuy gindi nit ñi di leen delloosi ci wàllu yàlla muy tegtale di wane ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngaleek xamleek gindi ak tegee ci yoon ak di jukkee ci lëndëm di soob ci leer la fi nekk woon tey boo demee ca fa mu gane woon àdduna ñu koy wax euh, cheikh bu abi taalib fa la ñuy jaaye téere ya fa la téere yu am solo ya nekk sallallahu alayhi wa waaye boo demoon tamit fa Abu Jahlin dëkkoon ca Màkk xam nga luñ fa def léegi këram xam nga lu fa ne fa la wan ak fa ñuy defee toilette di fa wër këram yooyu fa moom këram foofa loolu lañ fa liggéey barakallahu waaye boo ñëwee fii ci amoo kaat sunu ndeyu daara jiit fi mu dëkkoon Chérif Ibrahima fayee ko defal ko fi zawiya muy dégg allahu bar fu mu toll ay kàddu yi njàngale gindee kii fàttale kii laye biir di fi jibe lépp dellu ci jaamu yàlla yàlla na ko yàlla subhanahu wa taala nangul yiw yooyu mu def yéene ko ko ci dara yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne dugg fii ba gis ni mu ko liggéeyee xam ni kii li mu def fii fii mënoon naa deme neneen noo xam ne ay alal la koy indil kay yoo xam ne ci moom rek lay yem waaye ni mu ko yaatale ak nii mu ko def fa tabaarakallah sunu xaalis yi nu yulli ci alal ju bari mu nekk di jaamukaay yàlla di fi ñuy tuddee yàlla di fu ñuy jàngale ak yal na yàlla subhanahu wa taala fayal nu ko yiw woowu te mottalil ko ay yéeneem ci darajay maamam sallallahu alayhi wa sallam kon Chérif Hadj Ibrahima fa tabarakallahu ahsanul xaaliqina ñaan gaa ngoog ziar baa ngoog ak sunu ndeyu daara ju baax ji ca Sacré Cœur di soxna Adja Aminte Diop ndeyu shurafa yi baax lool moom tedd lool it yaatu lool it yal na yàlla barkeelul ko lépp lu mu jabooteeg shérif ñu bokk fekk lépp te jariñoo lépp ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ziyaar xaaji njaayo jóob baayam di ziyaar it aja yaasin yaayam di ziyaar tamit sunu sang ya yal na yàlla subhaanahu wa boola ñu nangu ak ku baax kiit di ku tedd fa tabaarakallah axsanul xaaliqiin di boroomi yéene yu sellit duy soxna Adja Karimatu Jaak ca Mariste fa tabaarakallahu ak way juróom yu baax sunu soppe ba xaaji Mouhamed Lamine Diak ñu di ko ñaanal fu ñu toll wér ak wérle mucc ak mucc dund ak dund léeg ndam ci biir ak ci biti ak magam ju tedd ju baax ji di El Hadji Alioune Diack kon Adja Karimatu ziar bangoog yàlla na yàlla subhanahu wa taala boola ñu nangul ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak it ku tedd ka ca France tey di soxna Adja Yatta Fall amit di sunu ndeyu daara ñuy ziar sunu sang ba fa tabaarakallah sunul xaaliqina di ñaan yàlla ci mbaaxam yàlla nañu boole nangul ci dara yonent bi alayhi salaatu wassalaam naka noonu it ñi ñu fi nekkandoo ñu wëlëranteek yàlla jëkk ci barab bii di def ngir yàlla muy El Hadj Abdoul Aziz Seck fa tabarakallahu ci disponibilité bi ci mbaax gi ci tedd gi ak ci sawar gee jottalil yonent bi sallallahu alayhi wa sallam niñ ko ko fii mas di seedelee ba li ñuy wax di ko fi jàngalee ak li fiy jibe ci xam-xam ak kiy laaye biir jaar ci jaww ji ba jaamu yàlla yi mën cee jot Hadji Abdoul Aziz Seck yàlla na la yàlla nangul loolu barkeel la barkeel loo am ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci biir wér ak wérle mucc ak mucc leeg dund ak dundle ak ki ci sawet ku baax kii deel Hadji Abdoul Aziz Diop jërëjëf ci taxawaay yi fa tabaarakallah asnul xaalixiin ku ci nekk àndi ko bu sel yéene yàlla subhanahu wa taala lii ñu koy defal yéene yonent bi alayhi salaatu jotal gi yàlla na yàlla nangu yépp def ko muy barke def ko muy xéewal defal na ko muy teraanga ak i njéggalam ak cofeelam yoo xam ne daf koy dawale ci ñun ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam sunu doom sunu soppe sunu xarit xaaji Mouhamadul Mansour géy doomu ku baax ka kenn dul fàtte El Hadj Baba Guèye Mansour na yàlla dolli ca moom leeram ak kii njëggalam ak nga sut ko fan de sa barkeem yaag say mag ak say rak ci dara bi alayhi salaatu wasalaam jërëjëf di ñaanale noonu Seydina Omar Guèye tabaarakallahu ak sëñ Thierno Ndoye sëñ Omar Diop ca dëkk yu sori nekk ca tarbiyaam ak sëñ Ibrahima Sonko di sëriñ Ibu Sonko jërë ngeen jëf jazakumullahu na waaye it ku baax kii di El Malay Tall ku yiw di jàngalekat di yarekat moom it di gindeekat di ñu sawarloo fu mu toll ci ay kàddoom tabaarakallaahu yoo xam ne ñaan yamu cay boole yaa nañ ko yàlla boole nangul ñun ñëpp. ci dara jont bi alayhi salaatu wasalaam bu message yónnee la ñaan ya bari ci ak yéenu yi sell ya muy ku tedd di ku baax xaaji ma lay taal yal na yàlla subhanahu wa taala nangul la lépp loo ko ñaan ak lépp loo ko jàmm ci dara jont bi alayhi salaatu wasalaam sàmmal ñu sunu kóllëre te nangul nu ko ak sunu cofeel gi nga xam ni doxale nañ ko ci sunu diggante te yàlla tax yàlla na ko yàlla boole nangul ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam soppe biit di xaaji Chérif Younous barakallahu jërë ngeen jëf ci taxawaay yeeg ñaani yi ak it uh, sunu doom ju baax ji di soxna Adja Jaynaba Jóob ca Mariste tabaarakallah sunu xaalixiina du tàyyi mukk ci jëfi yi teraanga ci jëf yi yiw yal na yàlla subhaanahu wa taala nangul ko ko te barkeel ko moo xam la mu bëgg yàlla ci mbaaxam ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla na ko ko defal te muy la gën ca moom boole nu kook moom ak bépp jullit ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye sunu soppe bi di soppe ñépp nag ku tedd ku baax ki xaaji Moussa Diallo ca Angleterre Angleterre ak Sénégal sore na de Angleterre ak sore na de waaye dafa mel ni ay dëkkandoo ñu léegi ndax bis bu jot ñu waxante fa tabaarakallahu asnul xaaliqiin yal na yàlla sàmmal nu ko fa mu ne barkeel ko barkeel njabootam bàyyi ko kii waajuram ak kii njabootam ci biir wér ak wérle mucc ak mucc dund ak dund le fa tabaarakallahu cépp ci dara yonent bi alayhi salaatu wassalaam Haji Moussa Diallo nit ku mën a jëflante yiw a ki teraanga la tabaarakallah sunul xaaliqin yàlla na ko yàlla nangul yépp ci dara yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak sunu imaam ratib bu baax bi xaaj Mouhamed Lamine Diop teel a gimbi rek teel a bëgg xam-xam teel bëgg jàng fa tabaarakallah sunul xaaliqin eh, teel a doon tamit jàngalekat ndax yitteem ak i jomam yoo xam ni jomi boppam mu bokk na ca la ko may fa tabarakallahu fi mu ëgsi tey di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala bàyyi koog ñun ci daara ji mu ñuy ameel fi jawayrul maani bu jeexeek jàmm maa ngi ko naan nañ ci boole nag ay kifayatul raghibina kifayatul raghibin bu maam xaaji malik ak ifhamul munkir aljaani ak fakihatu tullaab yi yëpp incha allahu taala danoonu ko pareel ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla mottalil nu mottalil ko loolu ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci biir wér ak wérle mucc ak mucc leeg dund ak dundle bu ko dara jot lu dul ay yiw ak teraanga ak yi xéewal rek waaye lépp luy feebar ak safaan ak yu ne mel yàlla na ko ci yàlla musal ci dara yonent bi alayhi salaatu wasalaam boole ñu ci musal ñun ñëpp ci dara yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak bépp jullit di gërëmee noonu it sunu ustaaz di sunu doom al ustaaz xaaji Sidi Mbaye Sidi ku baax la sawar lool moom it ci ni muy joxe xam-xam ak ni mu koy fa tabarakallahu tasaare te lépp ngir yàlla yàlla ci mbaaxam subhanahu wa ta'ala yàlla ñu boole nangul yooyu yépp ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam e su ko defee rekk xaji Abdul Aziz Seck gis nañu lii mu ñu bindal ci suuf muy li ñu war a waxtaane te wëy rekk ci di koy waxtaanee ni mu def rekk ba tey ñuy wéy ci kéemaani yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax it xam li nga am baax na xam li nga am baax na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ay kéemaanam laata muy gane àdduna sallallahu alayhi wa sallama lay keemaanam di dox di feeñ ci àdduna bi alayhi salaatu wassalaam ba ca ba mu gone àddina sallallahu alayhi wa sallam keemaanam ya feeñ na ca ndax bokk na ca am na benn këll bu nekkoon ca mag nga xam ne ku fay juddoo di doomu mag daanaka dañ ko liggéeye woon ay xërëm la rek daal nga xam ne dañ ca def seen gàllaaje ki seeni lu ñuy tuddee musuluwaayu ndax ku fa juddoo buñ la këppee këll ga ñu am yaakaar ci ni di nga nekk ci jàmm di nga dal di nga féex mucc ci luy ay ak safaan këll ba nag yàgg na fa lool ay mamaata ki mamaata ki mamaat judd nañ fa ñu këpp leen ko mu nekk këllug cosaan xam ni looloo fa xewoon bi gane àdduna alayhi te ñu génn këll ga bañ ko ko dëppee rek lëkka lëgga xar ca digg ba rek mel ni lu ñu dóor jaasi ŋaal dari fële ŋaal dali fële keroog lëkka lëgga yàqu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tuddam nga yàlla keroog ci liir buy soog a judd ñépp ko dégg allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam kon ay kéemaanam jiitu na ak juddoom alayhi salaatu wassalaam waaye gën faa rawati ba ko nàmpalkat ya gàntale ni duñ ko nàmpal ndax amul maanaam baayam newu fi faatu na te bëgg nañu kuñ lay nàmpalal sa doom baayam weer wu jot mu am lu mu la warlul ndax booba aadama fa doon dox waaye alayhi salaatu wasalaam ba mu gane àdduna ba nàmpalkate di ko romb nijoor ak càmmoñ so fental ko ndax amul baay ba aminatu bintu wahbin zaadaha allahu barakatan wa nuura mujj ànd ak wéetaayu xol ak yërëm doomam di jooy xalimatu saadiya ñewante ko lool moom xalimatu doolem demewul noonu am amam demewul noonu waaye ca nàmpalkatee la bokk de nàmpalkat yépp nag buñ daan jóge ca baadiye ba te mooy banlieue màkk yooyu le di jël si ñu ñuy nàmpal ku ci nekk naaru góor ngay war naaru góor naaru góor booba da koy dendale rek oto bi gën a cher fii ci oto yi te yooya jamono nga tollalal ko dendale ko yooya alimatu amul njëgu naaru góor amul kàttanu war naaru góor amu ko moom mbaam la daan war mbaam e ba mu gisee maam na toog ni mu toogeek muuraayam uuf liir bi te mooy yonent bi di jooy mu laaj ka lan la mu ne ko sama liir bi nàmpalkat yépp gàntal nañu ko kenn nanguwu ko nàmpal ndax amuñu lu ñu mën a yaakaare ci baayam ndax baayam nekku fi pour weer wu jot mu warlul leen ko xalimatu ni ko ah, man de ci nàmpalkat yi laa bokk fa ju dëkkit ba tax ngeen di taamu seen doom ñu koy nàmpale ca banlieue ba foofa laa dëkk te ca nàmpalkat ya laa bokk waaye nag man it doole ji dafa demewul noonu demewul noonu am naa sax sama doom ju may nàmpal moo it ma nga ca kër ga te ah teeg ma koo jox rek lu ma yàlla wërsëgale ma am ko ñu bokk mu bokk kook sama doom jamay nàmpal aminatu xam ni ci nàmpalkat yi la bokk mu ne ko kon jëlal xalimatu saadiya jël ko boor war mbaamam wuti banlieue ba fa mu dëkk fa tabaarakallah sunul xaaliqin mbaam ma naka la ko xalimatu war rekk te mi ngi boot liir bi di yonent bi rek mbaam ma yéeg cawarte goo xam ni dafa sawar ci saa si kon yonent bi ay kéemaanam yàgg nañ koo topp mbaam ma dafa yooyoon dafa suur ci saa si romb naaru góor yépp ak xël yoo xam ne ba ñooñu sax dañoo jaaxle na waaw alimatu moom mbaamam mi sawar na di ba teere ji ca dëkk ba xalimatu ak seeg mbaamam ca këram buntu kër ga dafa wàcc rekk dugg ci kër geek liir bi rekk benn tàndarma goo xam ni wowoon na sax ndax rekk dee dafa dugg rekk tàndarma gi jibbi ci saa si sëq ci saa si jur ga fa nekkoon di commencé tëbantu bu ci ne suur say a nga fees ba mu jigi xalimatu xamul nu muy def sax meew yi te da daan yónnee di ñaan meew ci ñeneen nàmpalkat ya ndax ñoom seen jur yo amoon nañu meew moom nag juróom ya dañoo yooyoo na yooy ba amuñu meew sax bu ñu nàmpale sax seen doom ñoom ah xalimatu mujj gi nàmpalkat yooyu ci moom la ñuy ñaan see meew meew ma bari jur ga tabaarakallahu da nga daan wàññi seen faar ya waaye yëpp suur loolu du kéemaan alayhi salaatu wasalaam ay kéemaanam yàgg nañ koo topp xalimatu saadiya ak moom ci noonu ba boroom këram bi ko doon denc moom xalima moom it seetlu na yooyu yépp mu dugg ci néeg bi gis xalimatoo ngi nàmpal ni yonent bi alayhi salaatu ba tëral ko ci lal bi mu mel ni kuy nelaw nii boroom këru xalima di ko jiw naan ngaan xalimatu sa liir bi jaaxal na ma sa liir bi daal ñàkkul lu mu àndal man li ma seetlu mooy bi mu duggee ci kër gi nga dugg feek moom ci la kër gi soppeeku ci wàllu naataange tàmbale ko ci tàndarma ji jur gi suur ak seen cawarte danga daan ñaan meew tey yaay maye meew sa bii ñàkkul lu mu àndal liir bi de fi mu tëdd ni wëlbét bopp bi xool jëkkëru arimatu daldi muuñ moom liir bi mel ni ku dégg li mu wax xool ko ba yàgg mu geesuwaat tëdd na le ànd ko ak reeja xalimatu ni aw jëkkër ji ne ah moom kat daa mel ni sax dafa dégg li may wax xam ko kon ay keemaanam alayhi salaatu wasalaam yàgg nañ koo toog sallallahu alayhi wa moo tax tàmbali woon nañ fi di waxtaanee kemaanam ñu ni nañu woy ci jéema seet nag nu ñu demee ba tey ci kemaan yi ndax it la yàlla may nga xam ko baax na lala yàlla may nga xam ko baax wax nañ ko fi ba tàyyi am sëñ Babacar Si radiyallahu taala anhu daan na wax ni am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam ko sax moo ko gën ndax boo ko amee te xamoo ko mën nga koo sàggane ba ñàkk ko waaye boo ko ñàkkee te xam ko mën na la jaral bépp yitte ci nga am ko ci nga am ko sama waajur daan na ma wax ni yal na ko yàlla dolli leer ak ki yërmande wëllëre Chérif Hadj Ibrahima Aïdara la mas na ma wax ni li nga bëgg a nekk dafa jafe mu di ma ko wax ni ma li nga bëgg a nekk dafa jafe ndax danga bëgg a nekk lu jafe nekk mooy taalibe doon taalibe mu ne ma yomb la nekk dafa jafe nekk mu ni nag boo bëggee doon lu jafe nekk ba yàlla subhanahu wa taala baaxe nga xëy ko doon di ku jafe nekk mu ne dese amaat nga beneen coono bu ëpp doole loolu nga xam ne nekk nga ko te mu jafe nekk doon taalibe yombul waaye li muy jafee nekk yépp am na beneen bu ko gën a jafe nee na mooy am sëriñ yombul am sëriñ nee na yombul sëriñ yi bari nañu lool waaye am ca sëriñ bay sëriñ ba mu ne yombul yombul mu ni kon bu la yàlla baaxee nga doon lu jafe nekk te mooy doon taalibe nee na yàlla dellu baaxeeti la nga am li gën a jafeñ doon taalibe te mooy nga am sëriñ yàlla baaxe la ko alhamdulilahi rabbil alamina ñu toog ñëpp nañu sant yàlla ci loolu maam Serigne Babacar Sy mi xam loolu radiyallahu taala anhu ba muy kañ sëriñam di ko bàkk te mooy Mawlana Cheikh Abul Abbas radiyallahu taala anhu mu ni ma boo gisee na mu tàmbalee woy wa alhamdu lillahi la ko tàmbalee hada cheikhu rabbaahu xayrul wujudi alladi alaahu mawlaahu mu ni ma boo ko bëggee dégg loolu mu wax booy woy woy wi di ko woy danga koy tàmbalee ci alhamdulillahi bi bi mu tàmbalee moom waaye boo déggee boo bëggee dégg li mu wax da ngay mujje alhamdulillahi bi da ngay tàmbalee ci hada cheikh da ngay tàmbalee ci hada cheikh mu ne sëñ Babacar si moo ne jàkk cheikh mi ko yàlla baaxe may ko ko cheikh di sëriñam mu ne haada cheikh bii sëriñ cey bii sëriñ mooy haada cheikh bii sëriñ nga xam ni yomb am ku yàlla baaxe subhanahu wa taala ci mbaaxam ba muy sa sëriñ di sëriñ bi nga xam ne nag rabbaahu kan moo ko yar ki ko yar mooy xayrul wujudi ki gën ci lu yàlla bind moo yar sëriñ bi yàlla dogal muy sama sëriñ ki gën ci lu yàlla bind sallallahu alayhi wa mooy ki yar ki kii yàlla dogal tey muy sama sëriñ kon kay yàlla may na ma hmm? kon kuy taalibi tiijaan ku ne dégg ko nii di seet la yàlla defal xayrul wujudi ba nga xam ni alaahu kawel na ko mawlaahu boroomam kooku moo yar sama sëriñ bii waxal na ko boppam addabani rabbi fa ahsana ta'dibi xayrul wujudi moomu ku ko yar boroomam yàlla mi ko yar nag subhanahu wa taala mi yar xayrul wujudi ngën ji yonent te mooy kii gën ci li yàlla bind moo yar ki yàlla dogal tey muy sa sëriñ te mooy Mawlana Cheikh Abul Abbas radiallahu taala moo tax sëriñ Cheikh radiallahu anhu nee na am na cër boo xam ne biñ ko koy jox defe naa ci diggante xat mi yàgg mi yëla nee na forcé ko ko dañ ko ko ñaan maamam moo ko négocier ak moom ni ko doon ko ndax cër la boo xam ni boo fa ba àgg ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku dul bi sallallahu alayhi wa sallam boo koy woo da sëgg moom rekk ngay woo moom yonent bi téen ca kaw xam ni moo la tiim mu ne ko ci kaw charte mu ne ko ban charte ca la ko waxee nag yi nga xam ni moom la soxla sëriñ Cheikh nee na nitu yàlla yi li ñu gën a ragal nee na du nattu nee na ragaluñu nattu ndax nattu kerkeraan la kerkeraan mooy échelle boo xam ni ci ngay yéege di jëli ya ngay jëli te yéeg dafa metti yéeg dafa metti si yëg ay escalier war a jëm cinquième étage wala huitième di ko jaare ci escalier metti na de ah? yéeg boobu tamit xam nga wàcc ko gën a yomb xam nga booy wàcc dangay ngay martalu rek daw dawaale ko waaye yéeg dafa metti moo tax boo yéegee ba àgg foog nga sonn mooy kerkeraan échelle boobu nga xam ni nag moom nga yéegee mooy nattu mas naa ko fi nettali fii maam Cheikh Moussa Ka mu baax ma yal ko yàlla dool dolli leer ak yi ngërëm def ko ca wala falam ba ne nattoo di kerkeraani awliyaaw yi échelle bi wàll yu di yéegi di jëli seen cër ca yàlla mooy nattu mu ne nag ku weddi laajal xayral ambiyaa yi ki yi boo ko weddee laaj ko laaj ko moom dana la wax luy nattu sallallahu alayhi wa kon yàlla ku mu am dana la nattu ku mu am dana la nattu nee na moo tax nitu yàlla yi ñoom ragaluñu nattu ndax xam na ni ci la ñuy yéege mais li ñu ragal mooy tem ba defe ni yaa nga fa te ña yor kayit gi bu ñu xoolee du ñu gis sa tur wala yaasu billaah yal nañ ci yàlla musal <laughs> yal nañ ci yàlla musal Serigne Cheikh nee na boobu la nitu yàlla yi ragal mu dal leen dem ba defa ne yaa nga fa dem ba defa ne fa gaañ a toll fa nga toll te ku dem ba foofa bu ñu seetee këyit ya du ñu gës sa tur yal nañ ci yàlla musal ci dara yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu nag la cheikh baxoon maamam ne ko garanti boobu dama dama koy am nga defal ma ko it mu nekk di garanti boo xam ni ñi may am ñuy nekk samay njaboot di samay taalibe dëgg leen koy defal dëgg leen ci dëgg leen di defal lu mel noona ñu nekk ay garanti yoo xam ni loola du leen dal mukk te sëriñ Cheikh nee na dem ak sa cër ci wàllu yàlla ba yegg foo xam ni defe nga ne yaa nga fa te fekk nekkoo fa nee na la koy tege di tax muy dal nitu yàlla nee na mooy yàlla nattoo la ngay kilifa njaboot boo xam ni gémmiñ ga dafa rëy yëkkati bi mu lay yëkkati bi mu lay di la tagg di la jox martaba yi mu ne am na foo xam ne bu la fa àggalee te àggoo fa au lieu yàlla nattu na njaboot googule maanaam mbugal ko wala mu nee na yow mi mu wax loolu te ngay sëriñam di kilifaam nee na yow lay teg boobu nattu yal nañ ci yàlla musal ci dara jant bi alayhi salaatu wassalaam nee na nag sëñ Cheikh na ba mu ko wax mu ne nag moo tax Cheikh ba ko maamam nangulee loolu mu ne ko foog ma am ñu ma encadré wër ma tudd ci ponkalam yile ponkalam yile yi nga xam ne ñoo ko daroon wër ko Aliou Harazim Baradak ñoom Aliou Tamasini dégg nga ñoom Mouhamadul tabarakallahu muqaddamam yooyu nga xam ni shérif moomu bokk ci ñoom mën na toog lim leen fa tabarakallahu ahsanul xaaliqina Ibrahima Rayahi sëñ Cheikh di ko lim ba ëgsi ni ko tamit day bokk ca charte ya nee na ma am ñu mel noonu na moo tax maamam. tamaan yooyu mu defoon mu nangul ko ca may ko taalib bu mel ni Cheikh Al Hadj Umar Fuuti yu may ko ca taalib bu mel ni Hadj Malick si radiyallahu taala anhu Serigne ni mu koy teg di ko wax da ñëw di wax ah ba ci sëñ Babacar ñoo ma am ba ni may ko taalib bu mel ni Cheikh Al Hadj Ibrahima Niass ak papaam gis nga ah, yi mu ko utal wërale ko ko. nga xam ni ñooñu ñoom am nañu garantie bi nga xam ni loolu du leen dal mukk pour dalalee ko xelu cheikh fa tabarakallahu radiallahu taala anhu loolu nag moo tax sëriñ bu mel noonu ku ko am am nga chance ku yàlla baaxe it nga am sëriñ boo xam ni da dafa bokk ca ñoo ñoom mais am nga chance moo tax haza cheikhu bii sëriñ nga xam ne rabbaahu yar na ko ku ko yar xayrul wujudi ki gën ci li yàlla amal bind yépp bind ñépp ak lépp ñépp yonent bi leen gën gannaaw yàlla xayrul wujudi moom nga xam ne xayrul wujudi moomu nga xam ne alaahu kawel na ko mawlaahu boroomam ah moom la yàlla dogal muy sama sëriñ nee na nga soog ni kon alhamdulillahi <laughs> mujjee alhamdulilahi bi ndax loolu ku ko yàlla defal nga war ne alhamdulilah moo tax mu ne ma ku bëgg a nekk lu jafee ne mooy doon taalibe yombul nekk bu la yàlla baaxee ba nga nekk ko mu dese la nag lu gën a jafeñ loolu jafe nekk te nga nekk ko mooy am sëriñ yombul nekk yàlla baaxee la nga am li jafe nekk te mooy doon taalibe am li jafee am te mooy am sëriñ mu ñu dese ne la beneen bu ñetteel boo xam ne nag moo gën a jafe ci ñaar yooyu yépp boo xam ne moo la dese te foog nga am ko te mooy mën a ame mën a ame ndax ñàkk mën a amee dina yàq aw amin <laughs> ñàkk mën a amee dina yàq aw amin boo amee te mënoo amee li nga amee li nga am mën na xëy yàqu te nee na ñaar yii benn bu ci nekk doy na di musiba ci gor mooy boo mënula amee li nga am di ko yàq te boo ko yàqee ñàkk ko boo mënula amee nite goo amee li nga am di ko yàq te bu yàqoo di nga ko ñàkk te nee na yàq rekk doy na musiba ñàkk rekk it doy na musiba waaye ñaar yi nga boole ko mu dal la nee na ku mu dal rekk wala yaasu billah ab dof nga yaa ngi ci yàlla musal ñun nag yàlla baaxee noonu fadila alhamdu wa shukru am na nu yonent bi alayhi salaatu salaam te xam li nga am baax na moo tax ñuy wéy ba tey ci ay kéemaanam sallallahu alayhi wa sallam feeñe na ca it ba muy gàddaay ya màkk dem madinatu munawwara alayhi salaatu wassalaam jaaxle tax ñu dugg ci ma ak seen coono mook seydna abubakar siddiq radiallahu taala anhu ñu dugg ci xuntuma ak seen coono ndax ñu ngi leen di dab si ñu ngi leen di dab si fexe nañ ko ñaari yoon ca suraaxata sottiwul keneen jóg di ko dab si sottiwul ba ñu yegg ci xuntum ak seen coono ak seen jaaxle seen abakar ni ko comme fii xuntu la bàyyil ma jëkk laa dugg ndax wóoruma ndax luy lore ngi jëm déet su ma la jëkkee dugg luy loree buñ ko fi fekkee mu lor ma yow nga mucc yeggale li la yàlla yónni kii xam na li mu am Seydina Abubakar Siddiq xam na ni ab yonent bu war a jotolal yàlla la mu ko yónni la mu dugg gis fa ay pax di xottat mbubbam mi mu soloon li mu làmboo di ko xottate di saañ pax ya ba mu des benn mbubb ma jeex mu def ci yaramu neen mu teg ca tànkam ni yonent bi agsil alayhi salaatu wasalaam dafa dugg agsi rek tëdd boppam ni ci kaw Abubakar di nelaw ndax sonn ndakati Seydina Abubakar Siddiq radiyallahu taala anhu yamu fatt yépp dara newu ca mais fa mu teg tànkam fa la mbir may lore ne te mooy jaan ja ji génn màtt ko ñemewul teggi tànkam donte metti na waaye mu ngay muñ rek parce que bëggul jaan ji génn tamit egsi ci yonent bi mu ngay muñ rek ñaq tooy xépp ba ñu wax ni aw ñaqam daal moo wadd ci kaw yonent bi yonent bi ni xefeer xool ko li mu ko jëkka laaj ana sa mbubb ana nga làmboo woon mu ne ko moom laa saañe pax yi ndax dama jàpp ni ñàkkul yuy lorelu ci ne nakati yi ma saañ bi ma bi mbubb yi jeex bi làmbaay bi jeexee bi ma teg sama tànk li ma lor ci la génne yonent bi ne ko teggil sa tànk mu teggi tànkam am na ñu wax ni alayhi salaatu wasalaam a ngi jàng allahu nuuru samaawaati wal ardi mathalu nuurihi kamishkaatin fiha misbaaxun wal misbaaxu fi zujaajatin zujaaja kaannaha kawkabun durrijun yuuqadu min shajaratin mubaarakatin zaytuunatin laa sharqiyatin wala garbiya ba aaya ba jeex jaan ji génn yonent bi wax ak moom ni ko na xam nga ki nga màtt ab yonent mën na wax loolu ne na xam nga ki nga màtt mu ne ko xawma ko mu ne ko diiru li nga nekk fii yépp ci pax mi loo daan dunde diir bi nga fi nekk yépp mu ne ko diir bi ma fi nekk yépp yàlla moo ma xamaloon ni ding fi jaar ma ñëw dugg ci sama pax mii di la xaar pour boo fi duggee ma génn ziar la barkeeloo ko ci yow mu ne ko diir bi nga fi nekk di ma xaar pour ma ñëw nga génn ziar ma barkeeloo ci man diir boobu yépp loo ci doon dunde mu ne ko yàlla daf ma xamal ci sa dugg fii ni di nga ànd ak sa benn jëwriñ ku la bëgg lay doon ku ñu wax Abubakar Siddiq ma xam ne kooku ngay àndal di ñëw yàlla def muy koo xam ne yaa ko tànnal sa bopp ci mu gunge la te yàlla xamal ma ko ci barke bi làmboo turam laa doon dunde barke Abubakar Siddiq mu ne ko moom nga màtt <laughs> mu ko moom nga màtt fekk xamu ko woon moom jaan gi waaye mu ne ko ñàkk pexe tak moo tax ma màtt ko waaye xaw man waaye barkeem ci barke turam rek laa doon dunde de te dara taxul ma màtt ko lu dul li mu dox sama digganteeg ma ëgg si ci yow ba ziyaar la alayhi salaatu wasalaam jël ni jorom bu tedd ba raay ci kaw abubakrin dangar ja wàcc loolu du keemaan Hmm? du kéemaan jaan ja dem yoonam ziar na yonent bi alayhi salaatu wasalaam tuub na réccu na la mu màtt abubakrin abubakar wér na waaye nag fi dangar ji wàcce nag mu mar fa mar woo xam ne nag moom seydina abubakrin radiyallahu taala anhu yeet bi ni ko lan la mu ne ko dama mar naan bugg ko woon jàmbat waaye mar wi tar na ba nu ko dama mar naan te barab bi du barabu ndox <laughs> ci xunt la ñu ne barab bi foofu fépp amul ndox dama mar naan parce que booba ñàkk na pexe yonent mi ne ko génnal xunt mi nga dem boo génnee ci ginnaaw xunt mi di naan mu génn wër tuuti ci ginnaaw xunt mi Seydina Abubakar Si radiq nee na ma seen dex goo xam ni dex gu weex tàll la waaye nag dama gis bay gis orison dex gu set wecc weex tàll nee na maa ngi gis ku sol lu weex tàll ak gaal gu weex yor benn joowu di wër ci dex gi te nee na dex gaa ngi ma janool bay gis horizon waaye mi ngi nii ci samay tànk neena may xool di ko xool ba fàtt ji dama mar nee na ci laa yegg suuf nag naan ndox ma neena du ndoxu fii ndox ma ma naan nee na du ndoxu ndox ma daal sedd na neex na tem-temi na te nee na caf koom mënuma koo melal ndax du ndoxu fii laa naan te dex googu amu fa woon nee na yàgg ga ma fa yàgg nag tax bi ma dugg naa ne ba dugg yonent bi nag kër yàgg nga di ma ne ko man kay li ma gis moo ma jaaxal ndax dama gis ak dex goo xam ni dama xool bay gis horizon ma di ko seetaan ba dama fàtte woon sax dama mar ca la yegg suuf nag sëgg naan waaye ka ma fa séen mu sol lu weextal nekk ci gaal di joow di di di wër ni ca kaw moom bokk na ci li ma yéem yonent bi ne ko Abubakrin gis nga dex googu boo génnaatoon doo ko gis dellu na para barabam dex googu benn la ca dexu aljanna yi la ba nga ma ne da mar te fii du barabu ndox laa teewlu loolu ci sama borom ma ne ko danga bëgg a naan mu jox malaaka ma yor dex googu ndigal ni ko dóoral ma dex gi mu fekk leen ci xunt mu ne ko dex googu boo génnoon tey doo ko gisaat dem na paraasam du du doxu fii dexu aljanna la mu ne ko man kay ndox mi man naan du ndoxu fii mukk waaw ki ma séen muy nekk ca gaal ga di joow kan la mu ne ko kooku gis nga ñi tax ñuy nëbbu ba ne fi bu ñu fi fekkoon yéefar yooyu yàllaa ko doon dalal sa xel rek bu ñu fi duggoon fekk nu fii gis nga gaal googu ñun ci la ñuy dugg mu joowal ñu ñu dem aljanna <laughs> loolu du kéemaanam kon waxtaanee kéemaanu yonent bi dina tax nga xam li nga am alayhi salaatu wassalaam moo tax te dafa daan waxit yu bari yoo xam ni ñëwagul alayhi salaatu wassalaam bu yàlla dogalee ba loola dogal ba dal mu war a ëgsi bu ëgsee day deme na ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxee woon dara du ca wàññeeku dara du ca yokk na mu ko wax woon rek lay demee maam xaaji malik ca xilaasu zahab mi ngi firndeel lu mel noona di wax naan innal mugayaba kal mashhuudi yuxbiruhu ka amri uthmaana wal islaaxi lil umami mu ni lu fàddu di loo xam ni dikkagul yonent bi wax ko loo xam ni dikkagul yonent bi wax ko kal nee na dafay mel ni lu teew la ci sa kanam nee na yuxbiruhu nee na bu soloo nag lu amagul maam yonent bi alayhi salaatu wasalaam di loo xam ne dikkagul wax loola na muy demee ji nee na loola ci moom ak wax li teew ñoo yem ci moom alayhi salaatu wasalaam ka amri Ousmane di na mu waxee woon moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci Ousmane ibnu Affan ni dañ koy boom wax na Ousmane ni ko yow dañu lay boom te booba Ousmane a ngi toog booba Ousmane a ngi toog dañu lay boom yow Ousmane te booba Ousmane a ngi toog xamaloon na Seydina Ali ni ko dañu lay boom xamaloon na Seydina Omar ibnul Xataab ni ko dañu lay boom ñi ñëpp waxoon na leen ko kenn ku ci nekkit ba nga ca yeggee la mu la waxoon ñëw na ci sa xel nga nangu dogalu yàlla nga nangu dogalu yàlla waaye tey defe naa ne ku sa sëriñ bu am baatin waxoon ne dañ lay boom boo tulli ko ni ñaanal ma bu buural ak si ma mucc ci waaye ñoom dañ ko dañoo nangu dogal ba dañoo nangu dogal ba alayhi salaatu wasalaam kon wax lu dikkagul day mel ni ca moom wax li nga xam ni teew na noonu la ko yàlla subhanahu wa taala defaloon moo tax mu ni ka amri usmaana dina mu waxe woon seydna usmaan radiallahu taala anhu ni dañ koy boom te booba loola ñëwagul wal islaax yi ak la mu waxoon ci sëtam di imaam xasan radiallahu taala anhu ni sama sët bii day mooy jubale ji ñaari kuréel ya di ña nga xam ne ñooy xeex ci diine ji te moo di diggante Muawiyah ibn Abi Sufyaan ak Seydina Ali radiyallahu taala anhuma la yéwénal ñaari mbooloo yooyu jaamaar la woon doon xeex booba loola dikkagul yonent bi ñi la koy yéwénal ci sama sët bii ji Asan ci lay jógee ji effectivement Seydina Imam Hasan la ko yéwénal ca moom la bawoo sallallahu alayhi wa sallam mu ni lépp loo xam ne nag waxoon na ko te dikkagul ba mu dikkee dëppoo na ak na nga xam ne noonu la ko waxe woon loolu tamit ci kéemaanam yi la bokk alayhi salaatu wassalaam kon loolu nga xam ne mooy jàmm ji mujjoon a am ci diggante ñaari kuréel ya Sidina Ali ak Muawiyah ibn Abi Sufyaan mu nekk jàmm joo xam ne lil umam mi bu ñeel xeet wi la woon nee na loola mi ngi bawoo woon ci làmminam ni asan mi mooy réglé ji loola mu ne kama axbara alayhi salaatu wassalaam an masaarici almushrikiina yowma badr di kama axbara nee na naka mu soloo woon di naka mu waxee woon an masaarici almushrikiina ca nërmeeluk yéeféer ya kañ yowma badr nee na keroog bëccëgu badar na mu leen koy waxee woon ba mbir ba dikkeet noonu la amee sallallahu alayhi wa sallam la mu leen waxoon ca nërmeelu bokkaalekatu yàlla yi te mooy ponk li yéefar yi ñoom ba ñuy xeex ci badar xeex leen yëkkati woon préparé nañ ko am na ñuy waruwaay am na ñuy ngànnaay yonent bi xeex yëkkatiwu ko ñi mu àndal bariwuñu ña ca am waruwaay bariwuñu tuuti la amu ñuy ngànnaay léegi nag ëgsi nañu xeex bi teew na xeex bi teew na na mu ko waxe woon ni ci la ñuy jëlee noona ndam la ak seenu nërmeelu ba loola amee tamit bëccëg booba lépp lu mu leen cooxoon gis nañ ko keroog sallallahu alayhi wa sallam wa mawta najashi na moo leen tàgg it buur ba ñu wax najaa najashi te mu nga faatoo ca Éthiopie ku faatoo ca Éthiopie di buur najashi yonent bi ci Madina tàggee ko ne najaasi yi faatu na mooy que jëkka dalal ci seen gàddaay gu njëkk ga nga xam ni jóge woon nañu màkk dem Éthiopie gàddaay fa ngir di làkku buur boobu leen dalaloon defal leen kaaraange ak i teraangaam keroog ba mu faatoo ca Madina la yonent bi toog yëg ni faatu na wa mawta Thabit ibni Qays nee na ak faatu Thabit di doomi Qays yent bi leen ko tàgge mu faatu di shahid moom it wa islaaxallaahi bilxasan bayna alfiatayni ak yéwénal ga nga xam ni mu nga yéwénale ñaari kuréel yooyu doon jaamaarloo te imam xasan radiallahu taala anhu yéwénal gu tukkee ca moom nee na loolu ba mu ñëwee na mu ko waxe woon rekk noonu la dikkee وبأن عثمان رضي الله تعالى عنه tusibuhu balwa azimatun shadida waxoon na leen tamit ni leen Ousmane ibnu Affan mii day balaa bu tar <clears throat> dina dal ci kawam te ba mu koy wax jàmm rek am Ousmane ibnu Affan mii balaa bu tar dina dal ci kawam ba na mu mujjee moom Ousmane radiallahu taala anhu e mooy fa xuusira fi daarihi gaw këram tëj ko ci këram te booba mooy amirul muminin di xalifa yonent bi doon na yonent bi mu yegg ci yonent bi dem na Aboubacar dem na Omar dem na moom mu nekk di xalifa bi leen wuutu ci yooyu tolluwaay ak yooyu daraja loola yonent bi waxoon ni dana ñëw ci kawam commencé signalé wu di feeñ te mooy gaw nañu këram kër tëj ko ni ko bul génn te sa tànk bu mu génn te sa buntu kër di dugg ci jàkk ci yemuñu ca dem ca ba ni ko sax sa njaboot gi sax bu ci kenn génnati kër gi di rooti ci teen bi bu ci rootati te teen bi moom moo ko jëndoon ci alalam may ko yonent bi dem nañ caa dema dema dema dema dem ba kuréel yi nga xam ne ñoo séddali ko woon te bu ci nekk contre ko fu ñu mujj ak moom tribunal Seydina Ousmane la ñu jëkk a taxawal tribunal di ko àtte te muy xalifa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax kuréel yi ñu ko contre woon dañoo bari ñii contre nañ ko ndax ñu déglu de li ko yonent bi noonu balaa bu balaa bu metti dina wàcc ci sa kaw ñii contrôle nañ ko nax dafa am ñoo xam ne yonent bi daf leen tànnoon génne leen ma dina tere leen ko ni leen bu leen fi duggati te ñooñu di ay mbokki Ousmane loolu tiis ci Ousmane ñaan na yonent bi ay yoon ne ko pour ñu dellu si yonent bi mayu ko ko gànt du ko wax dara mu xam ne gàntu na ko ba ni yonent bi nelawee alayhi salaatu wassalaam euh, Seydina Aboubacar Siddiq toog ci xilaafa gi mu ñëw ñaan Aboubacar ni ko ñooñu sama mbokk yooyu yont bi génn woon tere leen Madina ndax dooma may ñu dellu suwaat Seydina Aboubacar ni ko ñemewuma ko lu yonent bi deful gàntal la ko ak ni nga mel ci moom ñemewuma mukk di la may loolu mu muñ ba ni Seydina Bakar nelawee Seydina Omar ibnul Xattaab toog mu ñëw ñaan ko Omar Seydina Omar tontu ko lu mel ni ko Abubakar ni ko ma ñit ñemewuma loolu de wax dëgg yàlla ñaan ko ko bi gàntu na la Abubakar gàntu na la sopp naa la bëgg naa la waaye ñemewuma ko ba Seydina Omar nelaw moom usmaan mu toog ci xilaafa gi bi mu toogee la mu jëkk a def bokk na ci jëli ñooña am ñu ñu nag lu tax mu def ko yonent bi mayu ko ko Aboubacar mayu ko ko Umar mayu ko ko lu tax moom mu dem jëli leen wañe ne mooy xalifa bi wañe ne mooy kilifa gi ñooña bokkoon nañu ca ñu ko yóbboon tribunal mu war a layoon nag ak ñoom ak jaaro biñ doon doon nante ci ku toog ci xilaafa gi te doon ko roccee roccee woon ko ci baaraamu yonent bi bi yonent bi nelawee ñu rocc ko solal ko Aboubacar mu nelaw ñu rocc ko solal ko Omar mu nelaw ñu rocc ko solal ko Ousmane jaaro bi yàggaloog usmaan jaaro ba réer beneen kuréel mer ni dafa sàggan fonkul jaaro bi lu tax yàggul ci moom mu réer te abu Aboubacar ca baaraamam lañ ko roccee ni ñu ko roccee woon ci baaraamu yonent bi Omar noonu moom yàggul ak baaraam jaaro bi jaaro bi réer beneen kuréel contre ko ndax loolu ñoom it woo ko tribunal pour mu layoo <laughs> ah <laughs> beneen kuréel taxawati ni lu tax mu am sañ-sañu di wane sañ-sañ ba tax mu jël alxuraan ji dajale ko ni dégg nga teñ yonent bi deful woon loolu Aboubacar defu ko Omar defu ko moom mu ñëw dajale téere eh, eh, alxuraan yépp ber ko ni lii la yàlla wax lii la xadisul xudsi wax lii la yonent bi wax day wane sañ-sañ mënoon naa bàyyi na ko yonent bàyyi woon bàyyi ko na ko Omar ak Aboubacar bàyyi woon beneen kuréel contre ko nax loolu magi saxaaba yi nag ni ko ah neexul ba neexul yaay kilifa ñépp waaye taxaw tribunal la yëg ñoom jot na nag jot na ñu tàmbaleek moom ca ñe yonent bi génne te mu ñaanoon ñu dellu mayu ko ko mu ñaan ko Abubakar mayu ko ko ñaan ko Omar mayu ko ko lu tax bi yow bi nga toogee nga indi leen mu ni waaw xam nga man samay mbokk lañ ñaan naa yonent bi nanguwul ma ñaan ko Abubakar bi mu toogee mayu ma ko ma ñaan ko Omar bi mu toogee mayu ma ko mais keneen ku toogoon ñu dinaa la ko ñaan waaye bi yàlla dogalee ma toog ma dem jëli leen <laughs> duma ci ñaanante bi yàlla dogalee ma toog ma dem jëli leen ndax dama bëggoon ñu dellusi ci dëkk bi fu ma leen tooñe mag ñi ne ko ah, foofu de lay amu fi pexe amul kon yaay nga jox nañ la raison ndax wax dëgg yàlla nangu nañu ni kuy ñaan di ñaan ba foofu boo toogee jëli léegi nag mbooloo mii nag alxuraan ji nga dajale ber ko mu ni waaw ñun ñi mokkal alxuraan fekk bi muy wàcc ñu ngi dem benn par benn ñu ngi dem benn par ñun ñi ko mokkal nag des fi te ñu ngi dem nag moo tax ma ni jot na ci ñu dajale ko ndax bu amul daañu toll jamono boo xam ne dootoo xàmmee ci li yàlla wax ak li xaddisul xut si wax ak lu yent bi wax li yàlla wax yépp nag dajal naa ko mi ngi nii li yent bi wax yépp mi ngi nii li xaddisul xut si wax yëpp mi ngi nii mag ñe ni ko yey nga kat ndax bu jeexoon bu gën jeexoon tey ku fekke xam du fi ne jox nañ la dëgg léegi nag kuréel bi tontu leen jaaro yonent bi ni mu mel ci yonent bi ni mu ko fonkewoon ak ñoom ni ñu soppe jaaro bi di ko fàttali ko yonent bi jaaro bi borom sàmm na ko Aboubacar sàmm na ko Omar sàmm na ko yàggook jaaro bi jaaro bi réer ndax jaaro bi dafa daal ca teen ba doon jukkee baak jaaro bi foofu wadd wadd ca biir teen ba yu mel noonu daal mu ñu leen jaaro bi yomb naa layal borom mi ko moomoon mën naa ne gënuma sopp jaaro bi ndax dama sopp jaaro bi ndax moom Aboubacar gënuma woon a fonk jaaro bi Omar gënuma woon fonk jaaro bi dama leen di laaj yàlla buur bi subhanahu wa bu dogalee ni jaaro bi ci baaraamu usmaan lay réere lu ci usmaan mën hmm? kenn amul lay wax ñu jox ko dëgg ñu ko nangul la waaye fi mbir mi nekk dëgg dëgg dëgg mooy mbokkam yemu jëli woon te yonent bi tere woon leen Madina ni buñ fi duggati mu jëli leen balaa boobu yonent bi doon wax ni dana wàcc ci kaw usmaan mbokkam yooyu ko génnewoon ñoo ko fexeel ñoo ko rey ñooñu mu ñooñu yent bi génne woon di ay mbokkam ñoo ko fexeel ñoo gaw kër ga ñoo ko rey kon la yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ci ni Ousmane balaa bu mag dana wàcce ci moom ndakati booba yonent bi jàkkaarloo na ak ña mu génn woon nit daañu ñëw te daañ ko fexeel te moo taxoon mu génne leen interdit leen ca foofa dëkk bu tedd ba di madina al dina mu ko waxe woon tamit ci demu Seydina Omar ne dañ koy boom ba la ñëwee tamit noonu la nekke noonu daal la ko toppe lépp ci wéy ci di waxtaane kéemaani yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te lu mu ca waxoon buñ ca ëgsee rek mu nekkee ca na mu ko waxe woon te loola dikkagul bokk na ci bi cëkkee maanaam ya kama ata shajarun lil barri yasturuhu yaa rabbi hëpp listitaaran gayra munqasimi maam xaaji malik di ko wax ci xilaas ne kadaka naka noonu it ata dikk na ba tàyyi shajarun garab lil barri ñeel ku baax ki te mooy yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam yasturuhu di ko suturaal nekk na ci àll bi bëgg suturlu ci lu mel ni tuur ndox ak yooyu garab yi simpe koo fa ñu ne ñëw wër ko loolu duy kéemaan ah? bu paree garab yi benn bu ci nekk dellu fa nga nekkoon nga sampuwaat fa loolu kéemaan la sallallahu taala alayhi wa loolu ko yàlla may nag ci ay kemaanam xaaji Malik tàbbal fa ñaan nag moo tele ko wewu ko ne yaa rabbi yow sama boroom xëpp lii may ma man sa jaam bii istitaaran sutura soo xam ni xayra mun qasimi dootul dagg ba mukk lay doon te yàlla na ko yàlla boole defal ci dara jont bi alayhi salaatu wassalaam alayhi salaatu wassalaam ba tey daan na fekkit euh, Euh, ku amee feebaru ràgg yu mel noonu mu wéral ko alayhi salaatu wasalaam daan na ku amee nattu boo xam ne bu jàmp la léegi mu wéral la ndeysaan ràgg <clears throat> wal alaami ak borom mettit muujaatan <clears throat> wuy aji mettital boroom mettit boo xam ne dafa sonal boroom ak ixyaaul amwaati dem sax ba koo xam ne faatu na ci ndigalu yàlla mu ñaan dekkal kooka ibrai zillamam <clears throat> ak faj koo xam ne ku jënn sadd la di boroomu ndof ñaata yoon la yonent bi faj kooka koo xam ne jinnee ko sadd mu ànd ak i rab ñu indi ko muy def yu kenn xamul bu ñëwee bañ ko ko indilee da da euh, dañ koy wëlbatiku moon ginnaaw mu jël loxoom teg ci ginnaawam rek lu mel ni xaj bu ndaw mooy génn ci kooku di baw di dem mu ne jinne ji ko jàppoon bàyyi na ko ñaata yoon la def loolu alayhi salaatu wassalaam ñaatu yoon la ko def ak ñaata yoon la faj ku ràgg ka raddihi ayna qataadata ibnu nu'man wa tafluhu fi ayni ali ibni abi taalibin karamallahu wajha ni ki delloom nga mu delloo woon ayna qataadata bëtub qataadata ibnu nu'man ma doon xare te ba muy dem ca xare ba ab séet la bàyyi ñu jam ko xeej bët ba luqeeku waliyaasu billah mu téye ko ak loxoom benn bët ba mu ngi ci loxoom dañ ko luqi mu daw ak moom ci bi ñu ko dañ ma may séet ba ma fay jóge dara jotuma te bu ma ñibbee nii du du du baax bët baa ngi dañ ko luqi mu ko mu tàllal loxoom ne ko jox ma bët bi mu jox ko bët bi mu delloowaat ko ci ba bët ba ko delloo ga mu ko fa delloo tax beneen bët bi gisatul ndax leeraayu bët bi mu téyewu woon rek delloo ko fa lëndëmal na beneen bët bi mu ne ko ndax dooma may ma luqi bi ci des nga mu ne ko déet bàyyil noonu rek <laughs> waaw comme comme bët bi ñëwaat na daal <laughs> bàyyil noonu rek te dem mu àndaat ak bëtam boo xam ni leeraay ba tax na beneen ba ci des gisatul gisatul foofu <laughs> waaye booba leeraay doy na alayhi salaatu wasalaam def na loolu ak wannente gasiijo alin karramallahu wacca wannen noon toon ko metti lum ko faje ak lum ko saafara dafa janoog moom ëf bët yi rek mel ni ku tifli ndànk ci bët yi ci Seydina Alioune mel ni dara masu koo jot loolu tamit ndax du keemaan alayhi salaatu wasalaam yi mel noonu moo tax ñu la naan looy ñaan mag na la looy ñaan yàlla ñaan ko ci dara jaam alayhi salaatu wasalaam darajaam it kéemaan la alayhi salaatu wasalaam darajaam it la waxal na ko boppam lu ngeen bëgg ca yàlla jël leen sama daraja def ko muy lonk mu indi leen loola ndax sama daraja lu màgg fa yàlla la kon darajaam it alayhi salaatu wasalaam kéemaan la sallallahu alayhi wa sallam yooyu yépp yonent bi alayhi salaatu salaam def na leen te dafa bokk ci keemaan yi nga xam ni ñu nit war nañ koo xam ngir mën a xam li ñu yàlla subhanahu wa taala defal lan la kon darajaam jooju nga xam ne lépp luñ koy ñaan ñaan ko moom yàlla dañ koy ñaane loola mu may ñu ko ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam te lépp lu ñu bëgg yàlla nañu ko yàlla defal ci darajaam sallallahu taala alayhi wa sallama e bokk na ba tey tamit ca kéemaanam yi nga xam ne yàlla defal na ko ko nit ñëpp teg ci seen bët xaaji Maalik nga wax ci xilaasu zahab wa yashhadu dabb ma dhibin risalatahu ka dhabiyatin fi wisaaqi alqaanisi alarimi wa yashhadu nee na doon na seede yi yonent bi seede bu wér bu ñépp a xam kan loola du nit de ñu ne ko lan la mu ne ab dabbu am mbëtt benn mbëtt lu mu doon seede moom mbëtt moomu ci lu ñëpp dégg risalatahu ak yonentam mbëtt taxaw na ci kanamu nit ñépp mu seedal ko ne ne yow yonent nga mbëtt mi seddal ko ko ci wax bu wér ma bin nee na ak benn tilligit goo xam ni seddal na ko doonam di yonent moom it seedeel na ko ko ka ak koj beel tamit ba tey gu jigéen seedeel na ko doonam di yonent fii bi saaqil qaanisi nee na mi ngi nekkoon moom kéwél ga gu kojbeel ga ci yeewu aji rëbb goo xam ne daf ko yeewoon yeew goo xam ne nag al arimi nee na gu dëgër la kojbeel googa nag neena na seedeel na yonent bi ak yonentam mbët kojbeel bu ci nekk ak euh, till wax nga seedal ko ak yonentam mu ne bu dee mbëtt ma la nee na waaje daf koo rey gàddu ko euh, romb aw nit ñu wër kenn waa ji dafa doon rëbbi rey kéwal ga gàddu ko nag romb mbooloo moo xam ne am na ku ñu wër kooka di wax ak ñoom mu ñu leen kii kan la kii wax ak yéen kan la ñu ne ko kii di wax ak ñun mooy Muhammad li muy wax ak ñun sallallahu alayhi wa nee na yàlla boo ko yónni kaw kaw boobu nag waa jooju reyti li nga gàddu ko ni loolu lay wax ak yéen pour ngeen gëm ko ci bàyyi xër la maam ya daan jaamu ngeen wuyusu ko ci lii muy woote mu ne ah, mu ne xaar leen mu ma ñëw daldi di gàddu mbëtt ma ni ko واللاتي والعزى laa amantu bika aw yu mina hada dab koy giñ ci laata mooy seen yàlla yu xërëm yooyu la maa ngi koy giñ ci laata di ko giñ ci ni lii nga nekk di ko woote ni ab yonant nga lii nga nekk di ko woote ni ab yonant nga mbëtt mii maray ko gàddu ko feek gëmu la dëggal la ma dégg ni ab yonent nga duma la gëm te feek loolu amul ma xam ne doo yonent noonu te maa ngi koy giñ ci laataak usa ni nit ñi mbooloo mi ko wër léegi ma jàmmal leen mbëtt mi dee na moom moo rey mbëtt mi daldi ni ko nag maa ngi koy giñ ci laataak usa boo bëggee ma gëm la mbëtt mi maa ko rey dee na dekkal ko mu wax ma dégg ne yonent nga bu ko defee rek man ma gëm la bu loolu amul nag duma la gëm daal di jël mbëtt ma rekk nag sànni ko bayna yaday rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy sànni ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di téye mbëtt ma ndax bi mu koy sànni ci loxo yonent bi yonent bi téye mbëtt ma dee na de nit a ngi ko wër bi ni ko ya dabb yow mbëtt mi yow laay waxal noonu mbëtt ma fa ajaabahu bi lisaanin fasixin arabiyin mubinin mbëtt ma tontu ko ci waxinu arab yu wir ndax ay arab ko waroon yu leer nañ yu neex a dégg lu ko mbëtt ma wax te dee woon na de labbayka wa saadayka yaa na man awfa alqiyaama wuyu naa la mbëtt mee ko wax ñépp ji dégg yow sang bi nga xam ni yaay ki nekk ki di taarub ku ñëw yowmal xiyaamati taxaw ku ñëw yowmal xiyaamati taxaw rek yaay taaram ndax yow la yaakaar wuyu naa la ñépp di dégg alayhi salaatu wasalaam ni ko man taabudu kan ngay jaamu kan ngay jaamu yow mbëtt mi mbëtt ma tontu ko ni ko alladi fi samaai arshuhu wa fi l ardi sultaanuhu wa fi l baxri sabiluhu wa fi l jannati rahmatuhu wa fi naari adaabuhu huwa allahu alwaxidu alqahaar ñépp di dégg mu ne ko ki may jaamu mooy buur bi nga xam ni ngànguneem nga di arsham ma nga ca kaw asamaan ya nguuram gi buur bi may jaamu nguuram gu sax gi mi ngiy fese di feeñe ci kaw suuf si moo fi buur subhanahu wa taala yoonam wa mu xottee leen ca biir géej yi nga xam ne bu dul woon ak moom kenn du jaar ci biir géej bay tukki yërmandeem ja mu nga ca biir aljana di fa xaar jaamam yi ko gëm te ku mu yërëmul doo dugg aljanna mbugalam ma mu nga ca safara safara di fa xaar ñi nga xam ni gëmuñu la gëmuñu ko moom ñooñu la safara di xaar buur bii nag di boroom bi amal yii moom rekk lay jaamu man mbëtt mi ñépp di dégg gaaña ñu ko waroon ni waññet bëgg fëxandoo alayhi salaatu wasalaam ñi leen déet taxaw leen bu leen dem bu leen dem pareegu maa mbëtt mi daldi wax mbëtt ma ni ko waaw comme wax nga ma ki ngay jaamu buur bi mooy kan waaye léegi man may kan <laughs> léegi man may kan mbëtt ma tontooti ko ni ko yow yaay rasuulu rabbil alamin yaay yonentu borom mbindéef yi ak borom àdduna bi ak borom awalim yépp yaa moom yemoo ca de wa xaatimu nabiina yaa mottalil yàlla yonent yi mu yónni woon yépp te ginnaaw yor yu yonentu dootul amati ni ko xadd aflaxa man saddaqaka te ku la dëggal gëm la gañe na kiilu na gañe na ci kaw ki weddi waxaaba man kaddabaka te ki la weddi tamit gëmu la perte na fii perte goo xam ne tamit du ko bàyyi ba ëllëg waliyaasu billaah teg ca moom mbëtt ma ni ko ashhadu laa ilaaha illallah waa ashhadu annaka rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loola lëkka mbëtt mooma ñu reyoon te waaja a gàddu ko sànni ko ci kanam ni ko fekk mbëtt mi gëmula duma la gëm waa foofa lu fa des lu dul àndandoo rek gëmandoo ko lu dul àndandoo rek gëmandoo ko loola it aleyhi salaatu wasalaam bokk ci ay kéemaanam sallallahu alayhi wa sallam E ku mu gënalul sa bopp yonent bi laa wax ku mu gënalul sa bopp doo tàbbi aljanna ku mu gënalul sa ndey ak sa baay doo tàbbi aljanna ku mu gënalul say maam doo tàbbi aljanna ku mu gënalul say doom doo tàbbi aljanna waliyaasu billah ku mu gënalul sa jabar mbaa say jabar doo tàbbi aljanna boo dee jigéen ku mu gënalul sa jëkkër doo tàbbi aljanna ku mu gënalul sa kumu ku dul moom ku dul tabaraka wa taala doo tàbbi aljanna lii moom na leer na leer faw nu yëgal sunu bopp ni alayhi salaatu wasalaam moo nu gënal sunu bopp nañ ko yëgal sunu bopp seedal ko yàlla ni ko moom mii moo nu gënal sunu bopp moo nu gënal sunuy ndey ak sunuy baay sallallahu alayhi wa moo tax wax jooju fi jiboon ca jamono yële njuum te gënu koo rëy gënuñu ndey gënuñu baay axak kay moo nu gën ndey moo nu gën baay moo nu gën maam moo nu gën ay mamaat ndax bi ko yàlla laataa tànnal boppam daf ko muy soppeem daf ko jëkk tànnal ñi kay jur tànnal ko ay maamam tànnal ko ay maamaatam sallallahu alayhi wa sallam kon moo nu gën lépp te ku ko gëmewul nii doo tàbbi aljanna na leer nag ku ko gëmewul nii doo tàbbi aljanna sallallahu alayhi wa sallam bu leeree nii rek ñu nangulee ko ko nii a ah, suñu lépp yéwén bu leeree nii ñu nangulee ko ko nii suñu lépp yéwén alayhi salaatu wassalaam ndax ñun xeetam dañ koo jaral lu ne li tax ku mu gënalul sa bopp gënalul sa ndey gënalul sa baay gënalul say maam gënulul say maamaat doo dugg aljanna li ko yàlla seedeel ci ñun a tax yàllaa ko seedeel ci ñun yàllaa wax ak ñun ni ñu xarisun aleykum xarisun aleykum yàlla moo ni ku xër ci yéen la yàlla nee na maa xam ni ku xër ci yéen la xarisun ku xër ci yéen alayhi salaatu wassalaam ne na maa ko xam waaw yàlla seedal ko loolu comme xirree noonu ci ñun te fasul yéene alayhi salaatu wassalaam fasu ko yéene ku koy wuyoo dem safara fasu ko yéene te insha allahu taala dana ko réussir bàyyi sëriñ Babacar kër Mansour yal na yàlla dolli koy leer euh, as dolli ko wéral koy leer sax ndax dafa ànd ak leer yoo xam ni ndonoom la mu di ko dellowaat ci jaamu yàlla yi di ci sukkandiku dafa wax wax boo xam ni dafa dal sama xel te wax bi su ma ko nettalee dina dal seen xel te daañ ko ko nangul mu ni yowmal qiyaamati yowmal qiyaam yonent bi taxaw sallallahu alayhi wa xeetam wër ko yonent yépp taxaw aqtaab yi awliyaaw lépp taxaw ndax mooy bésu pénc ma di bésu taxawaay ba ñu janoog yàlla mu ni iblis taxaw iblis taxaw mu ni yàlla di jël foofa di ko booleeg ay malaayika koo xam ni ku bëggoon yonent bi la sopp yonent bi te muy li wér ci moom yonent bi gënal ko ñéppam ak loo mën a def yàlla di la booleeg malaaka mu lay poñe jëm ak ci yow safara iblis di fecc di reetaan di kontaan mu ne boobu kersaal yàlla du ko teg yonent bi boobu kersaal nee na yàlla du teg yonent bi kersa googu mukk alayhi salaatu wasalaam moo tax ma ne fasul yéene ku koy wuyoo dem safara te dana ko réussir alayhi salaatu wasalaam ñun daal fu ñu toll nañuy feddali sunu cofeel ci moom alayhi salaatu wasalaam nañ koy feddali nañuy feddali sunu dëggal gi ñu koy dëggal ni yàllaa ko yónni alayhi salaatu wasalaam dëgg la al ulamaa warasatul boroom xam-xam yi lañu ni mooy ñooy ñi wutu yonent yi yonent yi la wax modesté ma tax de waaye ñun moom lañu am amal affaire de dëggal nañu ñëpp gëm nañu ñëpp sopp nañu ñëpp waaye ñun moom lañu yàlla booleel alayhi salaatu wassalaam ñun lañu yàlla ñun moom lañu ñu yàlla booleel sallallahu alayhi wa sallam kon kenn ku ci nekk ci ñun fexeel ba ni mu la matee sang matee la ko ni di kilifa sëkk doyee la ko di sab yonent yow it fexeel rek ba matee ko noonu di njabootam alayhi bu ko defee ñu yéege mbir ma fexe it ba matee noonu yàlla di jaam ci kanamam ci kanamam ba janloo ba ñuy janloo ëllëg ak yàlla subhanahu wa boo janoog sa boroom ni ko ci waxin yàlla naam yàlla naam yàlla mu janoog yow ni sama jaam bi naam jaam boobu jàkkaarloo moo neex yàlla naam yàlla mu ne la naam jaam boobu jàkkaarloo yal na ko yàlla defal ci dara yonent bi alayhi salaatu salaam waaye nag feek ñu ngi am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dara jaam moo ñuy yéege ba foofa alayhi salaatu wassalaam dara jaam moo ñuy yéege ba foofa sallallahu alayhi wa sallam fa lilahi alhamdu wa shukru dalal na sunu xel nag laata muy dem laata muy dem dalal na sunu xel de yonent bi laata ruuxam yéeg di wuy ji yàlla jëmmam ju tedd ja des fa ñu di ko denc fële ca madinatul munawwara mu nekk fa di janoog ñun laata loola di am am na lu mu négocier ak yàlla ba yàlla nangul na ko ko te loolu mu doon négocier ak yàlla kat dara waralu ko lu dul ñun xeetam rek lay seet fu mu jaar ba jàlle ñu alayhi salaatu wassalaam te dana ko réussir dana ko réussir la tax mu wax la mu wax ci ku dégg nodd ngay àndak ak noddkat bi lu mu wax nga wax ko lu mu wax nga wax ko ba ca hayya ala salaa nga ñu laa hawla wala quwata illa billah hayya ala falaa laa hawla wala quwata illa billah toppe ko noonu toppe ko noonu toppe ko noonu bu paree nga tofal ca ñaan nga allahuma rabba hadihi daawati tamma wa salaatil qaayima ba ñaan nga jeex yonent bi nee na képp ku koy toppee noonu kaay maa ngi dalal sa xel yowmal qiyaamati dinaa la fekk ba fa nga taxaw ndax yell na ci man ma tinul la ci yàlla te daanaa la fekk baa ko faxaataaw tinul la tinul la ci yàlla subhaanahu wa taala mu bàll yooyu yëpp ay bunt yu mu ubbi la pour ñu jaar fu ñu nit pour mën a am ak tinoom ci kanamu buur bi ndax ku mu tinul nga jàll ku mu nga jàll nee na ku toppee noonu nodd di ko defee noonu bu paree nga tefal ci ñaan gi yàlla na ci man nag nee na ma tinu ëllëg ci kanamu yàlla te ku mu tinul nga jàll sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla nangul sunu cofeel ci moom ak sunu doon di njaboot ci moom te yàlla nañu yàlla may ci daraje yonent bi alayhi salaatu salaam ñu mujj ci loxoy yonent bi alayhi salaatu salaam waaye sunu borom subhanahu wa taala kullu man alayha faanin moom rekk de wax dëgg yàlla moo fii desi de moo tax nañ xiinte woo yàlla ak yonen ba ak jëfe yiw te xam ne kuy dox ci kaw suuf ab diggam dana ñor muy jéem a fàttali dee saa bopp ak ñi ma am ndax lee mu ma wor ci saa bopp ak ci gaa yi ma wër te xam ni mbër mi fi daan faj aajo lum ma sa mën tey jii la raw ndaxte yàlla ngi te moo yore mbir ndagam ka tax yàlla bindoon moo ni meng ni mes ànd ak saxaaba ya mbooloo moo fi gis dana far yónneen ba moo tax ñu feeñal lépp lépp lu ne bu kenn doon sax ci dun bi kon ba tey mu ngi wër ndagam saxaaba ya ak yónneen ya ak ñi fi daal doon nante ngir yi ci baatin ñoom la suuf mujj war maam sunu aadama junniy at yu wàññi lëf la am te teewul ba dee ak këram ni tasar Shuaybu dund na ci at ñetti junni yu mat nuuxun ñu ne genn wàlluk lool moo di la wér teewul mbërum deema ba mu ëgsee ñu xëy ni meles seen kër ya màbb na seen mbooloo ya mujj na far ndegam suleymaan ki moomoon dënd bépp ni mes daa ngelaw daan liggéeylooy jinne kenn du ca bër te xam ni dund na ñaar téeméeri at ndëre lëf nguuram ga daj fépp buy dem ay ñanaaw di ko xër daawuda baayam ka daan fab weñ gu ñuul di ko ñaw ay mbubbi kom ay mbubbi koŋ di taxañ ay serbe muy safu der fanam wa guddul moom daawuda juróom-ñaar fukki at la fi am naaloon na jàkkay tabax doomam ja àggale far baytul muqaddasi daawuda ka fon na ma ngoon ànd ak jinneem ya malaakam ndeema far ni jasar ndagam xaritab boroomam waaja daa mënu gan te moo di maam sunu ibrahima deew ko war te xam ni dund na ñaar téeméeri at soog a dem te soo gëmul lii yëral téere yi kaab ya bu wér waajoon bay rendi ismaayila doom jamuwaam jibrilu far jot ko mooy sunnas tëbaski ci xar gannaaw ba saarata naaw góom jur la doora feral isaaxa mbokkam dina lim seeni at ci lu wér sax nañ fi téeméeri at yu mat ba teg ci juróom-ñeent fukki at deeni leen jóg leen te wuyu kër ndagam borom taar bu rëy ba jékki-jékki ni mes cëy yuusufa tax jigéen ñay xëy di ŋàbbi gobar dund na téeméeri at ak fukki at bu jógaan nit ñépp topp ko ndax taaram bu rëy ba mu yor idrisa yonen ba daan dëkk ak durus abadan ayuba yonen ba daan muñ far ba fàtte jabar anamu ndagam ndagam danga fàtte zulqarnayni mas na fi wër maawul xayaati ba dox ay at ñu won ko xadir moomoon na àddina daf daan dëkke taaxi wurus malaakay aljanna dañ daan seet ci kër ga di wër ndagam ka daan tontu yàlla tontu lu wér moo xëy ni mes sàkk man mii tëx ba mel ni ci jur mooy waaja xar baxru xal soomin ñëw ca bu wér firaw na ñëw lab ca mook mbooloom ma àdduna wor moo sël bu qaaruuna moom yonte yàlla muusa suuf ñëw modd kook la mu am muusa am na imraana laa wax ndeem xamoo ko bu wér dund na téeméeri at ak fukki at yu tofal juróomi at céy malaakam ndeemi yaafa fa bi mbër ndagam kada fekk waajuñ rob ba yax ya fënëx mu ñëw fa dekkil ko moo dee xawma ma kuy xala ër di soppi yee fër ya ay mbaam àll buñ ko moyaan isab nu maryaama laa wax bàjja baare yi biir yàggu fi fanweeri at ak ñett rekk la fi am te ak dellu fii ci duniya wax ju siiw la ju wér ndagam ña yàlla yabal jibril ñu jëm ci ca ñoom ñoo xëy ne mes sàkka man masta def lu ma war yonen ya ak ñañu leen daan yónni ñépp ni mes loo ruq ruq mbërum dee ñëw fa bés di la wër ndagam ñi daa dox ci kaw ndox mee ko dem asamaaw di xëy di dox looy garab ñoom ñépp la suuf mujj war ndagam ña daan yokki dikk kuy bëgg a faatu ñu fàcc ñoo xëy ni mes lu ñu fiy def waaru jot na bu wér ndagam ña daan fitalanteeg noonu yàlla ba not ak gaaya daan defi kàngam ñoom la suuf mujj war ndagam boroom mbir yu toll nii ñépp ñépp ni mes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 ku ko xalaate nii war a xam ni loo fi bëgg wut pour am ku bu nar a yàq jikko jaratu ko hmm? jaratu ko tànnal ñàkk deeg sa dignité buñ la tëralee ca sa bàmmeel nga fa sa ngor waaye bu fekkente ni wut pour am ak pal ak lu mu mën a doon bala nga koo am bala nga koo jot campagne yaa ngi ubbi nga xas ku la neex yàqal ku la neex fexeel ku la neex jéem a daañal ku la neex loola nga doon wut pour am ko bu ñëwee neexatul neexatul mukk ci àdduna neexatul mas naa fi nettali taawuus nitu yàlla boobu fekkoon tombe woon nag jaafarul Mansour nga xam ni mboolem xalifa yi moo ci gënoon a ànd ak fierté jaafarul Mansour mënoon a sañse yëg boppam bu jógee bëgg ñépp jóg taxaw màggal ko te noonu la ko daan doxale moom jaafar bu jógee ñépp jóg taxaw màggal ko te kenn ma su ko ñemee sàllalu yaa amiral muminin rek yaa amiral muminin rek fu mu ni tëll yaa amiral muminin ñépp jóg taxaw am bés mu génn ci pale bi taawuus mu nga tëdd ne la ca benn suufu garab ñépp jóg taxaw amirul muminin taawuus moom fa mu tëdd ba mu geesoo gis muy jaafar jugul sax dafa wéy rek jaafar toog xool ko ni keekan la ñu ne ko kee de taawuus mu ne xanaa dëkkul ci dëkk bi ah kay fi dëkk sax de lu tax moom jógul taxaw màggal ma ah moom de nii la ko yàlla binde de moom daal ni mu ne ah kon yëgul kenn boppam rek la yëg mu ne ah nii daal lañ ko xamee moom daal dara yëngalu ko jaafar siqi jéegoom wuti ko garde yaa ngi ko topp jaafar ñëw ba tiim ko daal di jaar ci turam taawush mu wëlbati boppam gis ko jógul de dafa ko tàllal lox bi ah yaa jaafar dal di koy sàllalu te jaafar loolu gënoon a bañ mu mer ni ko wax lu tax waxuma yaa amirul muminin maa yaa jaafar lu tax waxuloo ma yaa amirul muminin mu ne ko gis nga fii ma fekk ma tëdd mu ne ko ah, mu ne ko ba ma juddoo xàmmee ba fii nga fekk ma tëdd masumaa fàttaliku fu ma waxee lu ma wóorul moo tax waxuma la yaa amiral muminin lu ma wóor rekk laay wax mu ne ko kon du ma amirul muminin waxuma la lool de daf ma wóorul ndax mboolem way gëm ñi dëppoo nañu ci ne yaay seen amiram déet te fasuma yéene wax lu ma wóorul mu ne ko waaw bu fekkente ni bañ a wax lu la wóorul tax na doo mën a yaa amiral muminin bokk na ci ormal ak respect ci ñun araab boo ñuy woo koy woo da ngay yegg ba ci turu baayam lu tax waxuma yaa jaafar ibnu mansour yegg ba ci sama turu baay mu ne ko déggoo li ma la wax wóoruma ndax mansour mooy sa baayam déet dangaa judd rek ñun la mansour mooy sa baay wóoruma jaafar ji nag wóor na ma moo tax man la yaa jaafar jaafar ne garde yi jël leen tëj ca kaso ba ñu yëkkati yeew pamti pamte dem tëj ko ca kaso ba tëj dañ ko jaafar tëdd na ñetti fan yoo xam ne mënul nelaw mënul nelaw bu tëddee gud ñetti guddi mënul nelaw mu xëy ca ñetteelu guddi ga ba mu yeewoon ni dem leen waa jëma tëjoon bërki démb ngeen tijjil ma ko indil ma ko taawush moomu mu dem tijjee ko ca prison ba ñu ko wuyul Jaafar amirul mu ñu ne moo soxla jiital ko ba ca fa mu toog mu ne ko waaw man bërki démb ba ma la tëjee ba tey man mënumaa fexe ba nelaw mu ne ko ah nelawoo ah, ne ko doo mën a nelaw nag doo mën nelaw mu ne ko man de nelaw naa ba doyal ah lu tax du ma mën a nelaw mu ne ko doo nelaw lu tax du ma nelaw mu ne ko da tëj dëgg dëgg ku ko tëj dootoo nelaw te man dëgg rek laa la wax nga tëj ma kon doo nelawati ndax da tëj dëgg te dëgg ku ko tëj dootoo nelaw jaafar ni tekk ni ko kon dama lay génne tey prison bi dama lay génne prison bi mais duma la ko génnee mu jeex mais dama la bëgg a fal conseiller nga nekk ci sama wet nekk sama conseiller mu ne ko ndax nangu nga nangul nga ma loolu mu ne ko nangu naa ko mais ci kaw charte mu ne ko ban charte mu ne ko dooma fay dara duma am salaire mu ne ko ah kuy liggéey foog ñu fay la mu ne ko déet dëgg nga bëgg ma la koy wax mu ne ko mu ne ko bàyyi maag ki nga xam ne moo xam moom mooy dëgg te am xàqu dëgg kookoo may fay waaye yow mënoo maa fay bàyyi maag moom rek te ma toog fii di la conseiller jaafar ne ko waaw d'accord waaye bu fekkee ne nangoo it ma fay la kon wax ma say bor am nga ay bor mu ne ko amee naay bor kay mu ne ko kon wax ma bor yi nga am ma fay bor yi su ko defee bor yi teggeeku la nga toog ak sagoog xel mu dal mu ne ko déet bor du fay bor mu ne ko loolu mooy la mu ne ko yow ay bor la wër ay bor rekk ci nga nekk ni sa pale bi ay bor la ak àq yi nga xam ne dafa amel jaamu yàlla yi tigguñu lu ci ne bor la te ko war a fay kon bor du fay bor jaafar jaaxle toog ba yàgg ni ko waa teema laa bàyyi nga dellu ca sa garab gu la tudd <laughs> mu ne ko alhamdulilah alhamdulilah ndax fa nga fekkoon fa lillahi alhamdu wa shukr mu ne ko waaye nag dinaa la bàyyi mais dama bëgg nga nangul ma lenn mu ne ko lan mu ne ko dama bëgg a wóolarenteeg yow mu ne ko nangul naa la ko yaa nañ ko yàlla nangul mu ne ko comme léegi sama wóolare nga te yaa ngi dellu ca sa garab ga nan de ma gunge la gunge ko ba ci buntu pale ba ni ko aw léegi ban kàddu nga may mujj wax dénkuma ko ma moom ci ci pale bi ban kàddu nga may mujj wax dénk ma ko may ma loolu bokk mu ne ko kàddu gi mu ne ko ah, mu ne ko ah, mooy fii nga nekk mooy château yi mu ne ko ah, mu ne ko château yaa ngi bàmmeel yaa ngi kàddu googu laa lay mujjee mu ne ko loolu mooy la mu ne ko gis nga boo génnee ci château yi ca bàmbeel yi nga jëm jeex hmm? gàtt na mais doy na waare wax bi gàtt na boo génnee ci château yi palais bii boo ci génnee ca bàmmeel yi nga jëm gàtt na mais doy na waare kon ñiy wut pour am ñiiwut pour am nañu bàyyi xel loolu ñii wut pour am nañu bàyyi xel loolu El Hadj Cheikh Gassama waxoon na ko fi Alfred Goux te booba amaguñu sax indépendance nga xam ni nit ku ñuul ñemewul woon ku weex Alfred Goux ba Blaise Diagne faatoo Blaise di nit ku ñuul. Alfred Gougou di tubaab bu xonk coy comme moo nekkoon mairie Ndakaaru di maire ba Gougou di laaj mairie bi pour France jox ko ko te mooy mairie Ndakaaru te boobu ku ñuul bariwul ñu ci ñemeñ ku weex El Hadji Cheikh mii doon def manaara l'islam ci rajo Sénégal ca la woyee Blaise Diagne woyam wa ndax Blaise ba mu faatoo libu yi taxaw coow am werante am ñu ni duñ ko dugal ci biir armeel yi ndakaaru yi ñii ni na fi dugg ñii du fi dugg xëccoo nara am ñu ne jarul xëccoo bi comme fii yaayam a ko moom mooy fa ñu denc Blaise Diagne ci booy dugg ci armee bi ñu ni comme fii yaayama ko moom lew na ko kon nañ ko fi denc foofa ñu gas denc fa Blaise barab boobu la ñu wax ni mi ngi tuddoon Kambo ca yooye jamono la Kambo lañ ko tudde woon ca la Cheikh Gassama waye ni Kambo doon na Kambo gu wér kàmboo doon na kàmba gu wér jooy leen ma leel sama mbër jooy ku mel ni googule góor moo di jooy ku rëy ku ko jar waa tugal ya jooy nanu ñoom jaañ manoon rangoñ na fi fer ñu ngi jaale waa Sénégal jaañ wu rëy ma daan fegilor ñay wu rëy wa jóoru na tax cuuc su jóg ni day wutu gugsu sax di wut ku ko fal mel ni kenn xamul di ko far Alfred Gux ñay wuréy wa mooy Blaise jóoru na tax cuuc su jóg mooy Gux ni day wut ku ko fal Gux sax di wut ku ko fal mel ni kenn xamul li ko far moom mi ni woyaan amagul tëb di xaste naan duñu gor moo tax xaste yi nañ ko bàyyi xaste yeeg waxante musiba yeeg safaan yi nañ ko bàyyi kenn du wute noonu kenn du wute noonu ku wóolu sa bopp doo wute sa doo wute la nga bëgg a am ay xaste ak sosal nit ak gaaral kook fexeel ko ku wóolu sa bopp te wéeru ci yàlla doo wute noonu gug su sax di wut ku ko fal mel ni kenn xamul li ko far moom mi ñuy wayaan amagul tëb di xas te naan duñu gor gaa yu mas di baax la fi xas daañu des di baax mu di xas koo xas gënatoo ko koo xas bu faywul mooy sa sang gënatu ko gaa yu mas di baax la fi xas daañu des di baax mu di xas maire yi bee nga foog ni ku dem loo fa gis dagan na nga jël gug si yow xamees na la kat dug defar da ngay wut a fër ndax kuy fajaan kuy defar dangay ngay jëkk jub kuy fajaan da ngay jëkk wér kuy defar da jëkk jub ku defar yëkkati na fekk nga jub ba noppi ku faj yëkkati na fekk nga wér ba noppi hmm? waaye ñu ngi toll ci jamonoy wudde campagne yaa ngi jox leen ma maire bi def leen ma lii maay lii maay laa maa lii maa laa fekk na sax boo ci amee mu baax waaye nañu bàyyi xas bi réseaux sociaux yi li ciy jib jekkul jaadul warul jekkul jaadul warul koo xas gënatoo ko bu fayiwul bu fayiwul gënatoo ko mooy sa sang moom ki nga xas su boobaa gënatoo ko mooy sa sang mooy sa sang xadis laa waxte xadis laa wax de yonent bee ko wax de wa in imruun chatamaka wa ayaraka bi amrin laysa fiika fala tuayirhu bi amrin huwa fiihi wa daahu yakunu wabaaluhu alayhi wa ajruhu lak wala tasubanna ahada yonent bi nee bul xas kenn loolu yonent bi jàngal bul xas kenn bul ŋàññi kenn bul waxal kenn safaan boo xam ne sa xamal nga ko ko as cam nag làmminam bu ñaaw ak ñàkk yaram ak ñàkk xam boppam bu taxee mu janook yow waxal la loo xam ne wóor na la sa diggante ak yàlla ni làmminam moo ñaaw waaye meloo noonu yonent bay wax de damay damay firi li mu wax làmminam a ñaaw waaye meloo noonu yonent bi ni su boobaa fala tuayirhu bi amrin fii may ma rek bu fekkee ne may sa kilifa bul ko waxal yow safaan boo xam ne xamal nga ko ko noppil bàyyi ko loolu sax la ko wax wadaahu bàyyi ko soo ko bàyyee yakunu wa baaluhu alayhi wa ajruhu lak musibay wax ja ak la ca bon ak la ca ñaaw yépp dana wëlbatiku ñu xëpp ko ko yiw wu mu amoon tamit bi mu la laata wax loolu ba foofu yiw wu mu fi amoon daañu dajale yiw wi jox la kii gënoo ko demul kii doo sangam hmm? est-ce que ku def li yonent bi wax ki la xas li yonent bi wax nga def ko ba ñu jël ay yiwam jox la lu ñaaw ci yow ak ca wax ja yépp ñu buub ko jox ko ko moom est-ce que gënoo ko demin yonent bi ni kon wala tasubanna ahada bul xas kenn bul ŋàññ kenn kon wutin bu neree yàq jikko jaratu ko wutin bu neree yàq jikko jaratu ko mukk ci àdduna sëñ Cheikh nee na ba may woteeg sengoor ca gàmmu la ko nettali mu wóor ma ne maa ko gañe te moo gañe woon moo gañe woon sengoor ca ba muy woteeg sengoor moo gañe woon moom sëñ Cheikh tuddoon na turu kii may waxte te dama jàppatul tur bi nee na booba temps kooku moo ame woon téléphone yi booba kilifa yi bu ñu daan waxee nee na kooku ca Thiès moo amoon téléphone yi nee na mu jékki-jékki woo ni ma jëlal sa téléphone nga déglu def naa affaire bi à l'écoute gaañaa ngi wax ci résultat yi ngi wax ci résultat yi sëñ Cheikh ne na mu wóor ma ne maa gagné mu wóor ma ne maa gagné nee na ma dégg ñaari kilifa di wax ñaari kilifa yu mag yoo xam ne kilifa lañu ci réew mi yëf yi day Cheikh gagné nañu de waaye nañ sàcc nan sàcc sëriñ Cheikh nee na kilifa googu ñu nan sàcc kilifa gam ko wax te ñoo bokkoon séq politique bi mu ne ko bu ñu sàccee Cheikh yàpp nañu ba faw dootuñu nawlonte bu ñu sàccee rek mu yàpp nu ba faw dootuñu def nawle nee na mu ma kooka tamit tontu ko ne ko kon yow xamoo politik <laughs> ko kon yow xamoo politique <laughs> nee na ñu benn sëriñ benn sëriñ la sëñ Cheikh wax nee na wax ko mbiree na mu demee nee na bi ne ah kon nag nañ sàcc <laughs> gis nga jamono booba Serigne Cheikh doon wut loola maam Cheikh Alhaaj Ibrahima Niass jamono booba sëñ Cheikh la àndal nii ku mu am na ànd ak sëñ Cheikh <laughs> Barham Diop ba ngi nettali yàlla na ko yàlla dolli leer am na benn doomu bàyyi bu taxawoon moom it doon laaj lu mel noonu ne daf ko bàyyi daf ko ni bàyyil te ànd ak seex ñu jàppale ko sëriñ Cheikh kilifa yu tedd yooyu la jàppale ko mu jël ndam li gañe ko ñu sàcc ko moo tax bind na ko bàyyi fi sàcc googu ñu ko sàcc bindal na ko boppam bàyyi fi xam nga kan la bind leetar boobu jox ko ko mooy le président Léopold Sédar Senghor mi fi nekkoon ni ko avec le manifeste que j'ai le droit et la fierté d'adresser à ton gouvernement j'estime nécessaire et même indispensable de te faire parvenir ce document qui se veut à la fois confidentiel et personnel. Comme tu le sais, la situation de ce pays qui est le nôtre est devenue par ta faute de plus en plus catastrophique. la politique de division qui a commencé par l'ère du BDS a presque ravagé tout les pays. Les grandes familles n'en sont pas sorties indemnes. Le Sénégal qui cherchait un guide, un chef politique, n'a eu la chance de trouver qu'un poète, un jongleur. Celui qui n'hésiterait même pas à égorger le bon Dieu pour faire triompher sa cause. du népotisme laministe à la régression solidariste, de l'orgueil modibiste, à la dictature djaïste. Aucune saleté n'a été épargnée pour qualifier les grands hommes de notre pays. Et toi, Seigneur, toi le plus fort, toi qui, du haut de ta tour d'ivoire, regarde comme si tu étais le Dieu des musulmans. Ces musulmans qui, je ne sais avec quelle naïveté se laisse exploiter par ce diable des deux continents. Paraît-il que tu as convoqué des personnalités religieuses, dont mon oncle, mon oncle Mam Aladji Abdelaziz, Senghor woo leen ñoom ñëpp pour leur parler des services que tu n'as jamais cessé de me rendre. Des services rendus? Quelle ingratitude! Je n'ai jamais fui devant mes responsabilités. Ce qui veut dire qu'avec les responsables du gouvernement, je ne saurais avoir froid aux yeux. Qu'as-tu fait pour moi après m'avoir volé et mes électeurs et ma majorité <laughs> hmm? <laughs> Et parler de mauvaise gestion de mon ambassade. N'est-ce pas signe de mauvaise fois S'il y a mauvaise gestion, c'est bien celle de tes neuf mois de règne avec les finances et les affaires économiques du pays entre les mains d'un blanc. ne ko nag si j'ai accepté de représenter le Sénégal au Caire c'est pour la seule raison que dans la capitale égyptienne l'occasion ne manquerait pas de rencontrer des gens honnêtes avec qui on peut collaborer pour dénoncer cette politique senghorienne anti-africaine tu te crois à l'abri du contrôle pour que tu passes ton temps à traiter les uns de voleurs les autres de malhonnêtes n'est-ce pas signe de malhonnêteté As-tu oublié le jour où dans ta chambre tu me demandais si tu pourrais trouver auprès des pays arabes des fonds nécessaires pour faire face aux assauts de l'équipe de Mamadou Dia? Je t'ai répondu qu'il m'était impossible de m'absenter car la situation du pays exigeait ma présence. C'est après que j'ai demandé à Abdoulaye Fofana de s'en occuper au niveau de Dakar. Ce dernier, après avoir réfléchi me faisait comprendre qu'il fallait un papier signé par Senghor, car, disait-il, Senghor est un type changeant. <laughs> C'est peut-être avec ce papier qu'il est arrivé à t'apprivoiser, à te mettre une bride sur le cou. Hmm? À Senghor d'hier et d'aujourd'hui. Seigneur de Ginette et de Colette. Seigneur de partout et de nulle part. l'éternel jongleur, le sadique intrigant. Ton nom est pour notre pays le symbole de la tristesse et du malheur. Quelle triste carrière daal def ci suuf signé Cheikh Ahmed Tidiane Sy moo ko bindal boppam yëpp a ngi fi. ah <laughs> a ngi fi. moo tax keroog ba Senghor di bàyyi di dem Sëriñ Cheikh léppam la bind ba fi waxit ñu dégg te woo ñoom Moustapha Cissé yàlla ko yàlla dolli leer ak ñoom amadu Karim Gaye yàlla yàlla dolli leen leer am ñu mu tànn Serigne Cheikh nee na sengoor a nga def ci kaw këyit gi les sage du partie Maguette Lo ca la bokkoon nee na moom ca la bokkoon moom Serigne Cheikh Senghor ni demaleen a soxla nee na ñu bokk toog mu ñu dama la mu jëkk a wax mooy nguur kenn du ko ñëdd nguur kenn du ko ñëdd dama bëgg a bàyyi dem bàyyi fi Abdou ma bëgg ngeen jàppale ko moo tax ma def ci kaw kayit gi les sages du parti ma bëgg ngeen jàppaleel ma Abdou Serigne Cheikh ne na mu dénk nu Abdou nee na ma rassuré ko ni ko daañu ko jàppale yàlla dogale mu bàyyi ñu jàppale Abdou abdu falu toog nekk président de la République du Sénégal jotaay bi ma jëkk ak moom moom Abdou Diouf Serigne Cheikh nee na ma ne ko Abdou nee na mu ne ma jàkk ma ak moom rekk ma ni ko xam nga général de Gaulle mu ne ma waaw nee na ne ko saaga naa ko maam nee na mu ne waaw nee na ma ne ko xam nga président Lamine Gueye mu ne ma waaw ma ne ko saaga naa ko maam nee na maag rek xam nga Modibo Keïta nee na mu ne ma waaw ma ne ko saaga naa ko maam xam nga président Mamadou Dia <laughs> nee na mu ne ma waaw ma ne ko saaga naa ko maam Senghor duma la ko laaj moo dandu nga toog te moo ñu la dénkoon jox la yëf yi du xam nga ko nee na mu ne ko waaw mu ne ko saaga naa ko maam dama lay laaj juróom yii ma la limal koo ci yemal sur tous les plans ci dee dee muy ci politique muy ci leneen nee na mu ni tekk di ma xool ma ni ko doo dégg mukk ma saagaloo du ma la saaga mukk du ma la saaga ndax dama la seexlu ndax bokkul ci sama sunna man ma songoo kii mbir di songoo kàdde du ma la saaga mukk nag waaye rek ma bëgg la déggloo ni kilifa am na nu muy demee doo ko mën a yilif loolu rek laa bëgg nga xam ko mooy la góor gu Ousmane daan wax ni kilifa ak sang bokkul kilifa ak sang bokkul daa gis na ku yàlla baaxee mu boole ñaar yëpp di kilifa di sang di sang di kilifa waaye boo dee kilifa yàlla def la ngay kilifa te boolewu ca càng ga nekkoo kilifa di sang wattul wattul ndax ña nga yilif danga ca yilifaale sang hmm? te sang boo ko dee yilif te ngay kilifa boo xamul nooy tooge boo tuwul yat dana at yatu alkaande mën na la jóge fooge foogewul moo tax kilifa ak sang bokkul mën nga am nattu nag doon kilifa yilifaa la sang ca ña nga yilif wattul nag ku mel noonu lu mel noonu ku mu dal wattul moo tax comme réew mi nag ay goro ko dëkkee ñu mag ñi waajal ñoo ko dëkkee yare ko sëñ Cheikh Tidiane si nee na réew bu dee benn bopp benn ween nàmpal leen bu fa safaanoo amoo amee wet yépp lay mettee senegal noonu leen yàlla boole ñu bokkee ko ni kon xasante bi nañ ko bàyyi waxante safaan yi nañ ko bàyyi sosalante bi nañ ko bàyyi du dëgg nañ def rek la Cheikh Aliou Ndaw waxoon bindkat boobu nga xam ni jàngal nañu bari tey ci réew mi la mu doon wax naan senegal mbaa du cat def ko dugg nañ ko bàyyi xel nii ko doom yi tiimi di ko pamti pamtee moo nu mu tudd xër la gën a jegem ñàkk yar kii nga naan jox ma sa loxo ndey maa la xam kee bu ko déglu maa tàmm say tawat te ñi ngay roy ba tax laa mel noonu seen réew ñoo fa yées joxoñu nit àqam ndax nit te dal leen teg ci yoon di omat ni ay xar waaye ku ne fëgg dënn naan cey buñ ma xamoon senegal tàyyi na senegal sonn na senegal toqi na mujj toog benn bërëb téye boppam coolaan wër ku ne di ñu te lii ci xam-xam lii ci pexe ak lii ci mën-mën yàlla boole defal nu ko ci ku ney fëgg dënn naan cey buñ ma xamoon di ayibal sa moroom di ko yàqal di wone ne du dara yow yaay dara. Hmm? yaay dara kon nana nanu bokk xam ne senegaal sunu gaal la eh bu nu ko seetaan muy diig senegaal sunu gaal la ginu yàlla boole dugal nu ci mu jur ñu ñun ñëpp gannaaw ba mu ñu meññee ay waay bu ñu ko seetaan muy diig na ku ne fëx mooy ci aw laf muy tëmb ba faw kenn jombul joow te kenn yeyoowu ko moom dong <laughs> Hmm? ah du dëgg sama oustaz <laughs> du dëgg du dëgg sama professeur ah du dëgg góor yu baax yi oustaz Sidi nee na Sénégal Cheikh Ndaw nee na sunu la eh waaye bu nu ko seetaan muy diig na ku ne fëx mooy ci aw laf muy tëmb ba faw kenn jombul joow te kenn yoyowu ko moom dong coow tamit matu ko du man ak fekkewuma kook bokkuma ceeg ba ñuy lekk wowuñu ma woon lii lépp xam nañ ko waaye nañ sotle Sénégal ba noppi <laughs> kenn masu fee nelaw nag waxuma ak di dajjant dafa tollook nag fitne ji ëw sunum réew dar ko te ko bàyyi jekku na ko nag ba ngembal laa ngi bëgg a tas te ngembal senegal bu tasee Sénégalais di nga rus su boobaa ndaw gàcce su boobaa gàcce su boobaa ndaw gàcce ngembal senegal bu tasee ndaw gàcce ndax ñëppay rus kon nag wutin moo xam maire la moo xam député la moo xam ministre la moo xam président nga bëgg a doon wutin wu mu ca wu mu ca bu naree yàq jikko jaratu ko bu jikko yàqee nga soog koo am fekk jikko yàqu nga soog koo am loola baaxatul baaxatul mukk bon na ba faw nag yal na yàlla subhanahu wa taala jéggal ñu lu ciy njuum te defal ñu dégg ak topp ci dara yonent bi alayhi salaatu wasalaam di feddaleete rek sunu ziyaar ak sunu cafeel ci sunu sang Chérif Alxaaji Ibrahima Haydara di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala ni ñu ko waxee ci njëlbéen bi yàlla mottil ko ay yéenam fii ci réew mi ak ci lii ko yàlla xiir mu di ko liggéey wa waaye waxkat ba nag borom xam-xam ba noonu na yàlla ku mu nama fay ëllëg liggéey loola yàlla ku mu nam fay liggéey loola waaye shérif yàlla gi lay liggéeyloo wax naa léegi ni ku gis fii ni mu mel xam ne alal ju bari dugg na fi kon mënoon na demee neneen noo xam ne lépp lu ca rote baa mu génn ci ci yow rek lay yem waaye ku gis lii ak ni nga ko liggéeyee ak li nga fi installé Cherif Dabakh TV xam ni bëgg nga yëf yaatu te bëgg nga nag la samaam sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum waxoon ni Sénégal jot na sëkk ci mu jot teraangaam kër jëmbala ko waxoon jot na sëkk ci senegal mu jot teraangaam nee jot na ba tax na ñaanu maam yu baax yi fi woon yëpp yàlla nangu na ko mais nee dafa takk moo tax jariñoo guñ ko dafa takk te ci xol yi la tage ci xol yi la tage kon nag nañu nañu nañu nañu jubloonte yéenante yëf yàlla subhanahu wa taala may ñu ñu jariñoo ñaanu maam ya ci biir jubóog juboo dëppoo ak dëppale tabaarakallaa sunul xaaliqiina yéenante yëf yi na kenn ku ci nekk ci ñuy xëccoo maire yeeg yu mu doon na kenn ku ci nekk wéet ak yàlla ñaanal ko sa morom rek nga xool na kenn ku ci nekk wéet ni yàlla diw yàlla na am loolu rek nga xool ba xam nu yàlla lay defee moo gën fexeelante beek waxante safaan yeeg yàqalante bi yaa ñun ci yàlla boole musal te yàlla ñu yàlla boole nangul ngeen baal ñax baal na leen yàlla ci mbaaxam yàlla na nu boole baal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.